boo leen bëggee am mbooleem vidéo yi bàyyeekoo fii ci Istikhama TV da ngeen di bés fu ñu bind abonné bu leen fàtte bës fu ñu def cloche bi foo leen mën ne ci àdduna bi ngir ngeen mën a am mbooleem vidéo yi fi bàyyikoo wajjantu kulliya bi hamdin wa shukur ila walil muminina wa shakur asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki euh, internet euh, Istikhama TV ñu ngi leen di nuyu di nuyu mboolem euh, doomu ngeen bi yëpp Euh, ko gis fii ñu waxee ñu ngi si pencum Nguène Seye Euh, fas yéene nag euh, ànd ak ñi nga xamee ne mooy bépp doomu Nguén Sèye si ndaje famille bii ñu war a def le 12 février di dimanche tombé ak tey ñu ne fii si penc mi fas yéene ànd ngeen si mbooleem ruq yi nga xamee ne ñu ngi si Nguén Sèye ak mbooleem yi nga xamee ne sunu maam yi bàyyi woon nañ ko fi muy cosaan ñu fas yéene ànd ngeen bi dinañ seeti mag ñi dinañ seeti yi waaye dinañ dem si bërëbu siyaar yi nga xamee ne ñu ngi si biir Nguén kon nag fii ñu nekk ak yéen bu leen ko tegg ngeen topp ñu fii nga xam ne mooy Istikhama TV bu ko defee ñu ànd ngeen si mbooleem loo xam ne nag mi ngi ci biir ngeen see incha allah dinañ leen ko daal di fësal léegi wasalaamualeykum wa rahmatullah waaw salaamaaleykum euh, ku gis fii ñu taxaw fii mooy taalub jàngu bi nga xamee ne sunu maam Aliou Diagne moo ko moo ko yoroon di ñaan yàlla sunu borom yokk ay leeram te tax ñu si barkeem kon day mel ne cosaan li nga xamee ne moo nekkoon ngeen sëy ba léegi dara wàññeeku gu fi daara ji ku gis nu mu mel xam ne mi ngi ñu ngi koy méngale ak fi jamono toll euh, ndax bu ñu xoolee ñaari at si ginnaaw yaakaar naa ne fii yëpp ñu fi ñëw ay badaasu seng moo fi nekkoon ak li nga xam ne mooy ay sàkket waaye jamono mi gis nañ ne miire nañu ko def fi mbaar moo xamee ne xale yi fi la ñuy jànge ak néeg yi nga xamee ne fi la ñuy fanaan kon day mel ne ne ni maam Aliou Diagne doon doon doon def ñi mu fi bàyyi di doomam yi ak sëtam yi ñu ngi koy ñu ngi koy taxaw bu baax a baax euh, kon dañuy gën a soññi mbooloom yëpp mbokko mbooleem doomu ngeen say xam ne taalub jàngu bi nga xamee ne amoon na fi sunu maam Aliou Diagne yore ko ba léegi mu ngi fi dox ki fi nekk nag di sëriñ bu man li muy def te xam ko lool muy sunu sëriñ Yankuba euh, man li muy def lool si alquran euh, fii nag mi ngi noonu gis nañ ko. bâtiment bi mi ngi nele ak néeg yi nga xam ne mooy néeg dongo yi ak mbaar mi nga xamee ne fi la dongo yi di di jànge kon nag ñi ngi soññi mboolem képp koo xamee ne am nga xale boo xamee ne toll na si dal jàng ah li gën mooy comme ñun dañu toll foo xamee dañuy ñëw di xeeñtu li sunu maam yi bàyyi woon day gën a yombal xale bi nga xamee ne dafay ñëw jàng fi day gën a xam dëkk bi dina gën a xam lan mooy cosaanu dëkk bi kon nag lii mooy daara alxuraan yi nga xamee ne moo nekk fii si Touba Nguenseye waaw salaamaaleykum wa rahmatullah mbokki euh, jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu bu baax te di leen ziar euh, comme niñ ko defee ba léegi rek mel na ne ñi ngi topp mag ñi nga xamee ne ñoo nekk fii ci ngeen sëy euh, wax dëgg yàlla ñu nekk fi nekkin bu rafet boobu ba léegi it macha allah ñu ngi fi di ñaan yàlla sunu borom yàggal leen fii. seen taxawaay gën a yàgg te nag ku jàkkaarloog jëmm yi nga xame ne moom la ñu jàkkaarlool muy sunu maam Alsaan Diagne euh, nekk kilifa fii si dëkk bi waaye yore lu bëree bëri fii ci fii ci dëkk bi kon nag dañ koy daal di jox rek bu ko defee moom mu nuyoo ñu jàll ak moom ci ay waxtaan yu yu yu néew a néew bisimilah. salaamaaleykum wa wa barakaatuhu. alaa wa salaam. alaa yàlla. di sant yonent bi sallallahu alayhi wa sallam saa borom yàlla jëlul nu ci nit yi islaam ñu di ko toppatoo ci ngeen sey a ah, nun nag sunuy maam ak seen maam ñoo bokkoon dikk fi nag ba léegi xale yi nga xam mbir mi ñu ngi koy toppatoo di ko doxee ni mu waree léegi nag nun ay mag lañu di leen dimbali di di ci sukkandiku daal di leen jàppale ci ni ñuy doxee waaw ndax. wax dëgg yàlla a ah, ni ma gis seenu doxeen daal bu leen yàlla bu leen cat jàppul man naam ñëwaase dëkk bi ba moom egg foo xam ne fooguñu ko woon waaye mbirum lislaam moom amul dara lu ci mos a tardé ci ngeen du alxuraan du leneen waaw ah nun nag noo nekk di góorgóorlu di jéem a jàpp ci loolu ndax sunu kër baay bee di Aliou Diagne nga xam nekkoon bi sëñ bi nelawee dama doon bañ kër gi defub dineer ba yàlla dimbali ñu léegi ba daara nikk fi yoo xam ne daara ji ci nekk ci ay taalibe mat nañu téeméer a ah, gannaaw yàlla nag maa ngi sañ sañ xaadim sañ saaliwu moom sañ xaadim awa ba ndax moo nu jàppale ci daara ji ba leen ci bëgg lépp àggun ci waaye nag mi ngi dox daal bu baax a baax noo ngi sant yàlla di sant di sant waajur yi ñu dalaloon waaw waaw ngeen de yetti ñetti matière rek fi nekk sëy ñooy première bi waa kër Ala Jaañ topp ci waa yen topp ci kër ma Jóob Sekk léegi nag ñoom ñëpp ñu ngi ànd doo góor góorgóorlu kër ma Jóob Sekk a ah, bari na jigéen ñee fi des waaye góor ñoom bari nañu fi nekkatul waaye nag ñu ngi góorgóorlu daal di toppal nañu defoon rek ba léegi si waaw waaw mbokk yi ñu ngi nuyoowaat ku gis bërëb bi ñu taxaw euh, nekk euh, bërëb bi nga xame ne way daw li nekkoon ci ngeen see ñu si bari ñu ngi tëdd fii euh, di ñaan yàlla sunu borom yokk seen ay leer te xaale leen àjjana oyofal suuful ngeen see si seen kaw bërëb bi nag bërëbu ñaanukaay la ndax it mag yi ngeen ñu bëree bari ñu ngi fi ba ki nga xame ne moom lañ fi mujjee denc di sunu wayjur muy sëriñ maam góor sëy bu Dakar di ñaan yàlla sunu borom yërëm ko xare ko aljana fii bërëbu bu ñaanukaay la ndax bu ñu gisee nii ñu ko nii mu ni mu ni mu ni mu bindoo nii xam ne gën nañ fee gën nañ fee denc waaye nag it comme niñ koy waxee ñu bëree bëri mën naam dañuy jógee fii di di di di dem Touba waaye nag it euh, mooy nekk bërëb boo xamee ne bërëbu ñaanukaay la niñ ko waxee ndax bari na maam yoo xamee ne ñu ngi fi tëdd waaye ñu siy jàpp taxul lu bari lool waaye. ñoom ñëpp rek dañ leen di maasee di leen ñaanal sunu borom yërëm leen xaare leen àjjana di ñaanal ñi fi desit yàlla sunu borom saxal leen si ak njub ba ñu fekk ji leen kon man na ne Touba ngeen Seye lépp lu ab dëkk di am rek am na ko kon nag ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax a baax di leen siyaaraat bu baax a baax di ñaanal ñi fi tëdd ba tey it yàlla sunu borom gën leen a euh, yokku yërmaana si ñoom euh, gën a saral seen ay yax wasalaamaaleykum wa rahmatullah fi nga xam ne mooy guy tuxu muy guy yi nga xamee ne yaakaar naa ñu bari ñi ngi dégg guy tuqutew mosaguñ ko gis euh, cosaan li nag ni ñu ko mag ñi waxee ak sunu nijaay wala sunu jur yi nga xam ne fi la ñu seen ngone fi lañ ko defee dafa bokkoon ci guy yi nga xamee ne ñoo seen wuyyi maanaam wuy muy doom yi euh, dafa rëyoon ba jéggi dayo lool ba tax na ñu bari si ñoom ku si mosaan am wenn wuyu rek daanaka da nga daal di mën a wàññeeku guy gi moo nekk nii ku mel ne Serigne Fallou say bëgg jàmm ku mel ne ñoom si nijaay mosor nga ñooñu yaakaar naa ne ñoom bu ñu gisee guy gi dana am lu leen fàttali bu baax a baax kon nag fii nag mooy guy tux maaleykum wa rahmatullah mu mel ne fii ñu taxaw ni ñëpp gis nañ ko mooy waañ wi nga xamee ne ñoom ñoo yor togg yi jëm si ndaje mi ndax ku woo ay gan ku woo ay nit yaakaar naa ne la ngay def mooy da nga leen bernel da nga leen teral ñii nga xamee ne ñoom la ñu teg yëf yi si seen loxo ñu taxaw ne ku mel ne sëriñ euh, Masay Sey ku mel ne sëriñ Xaadim Sey mi ak euh, ku mel ne sëriñ Maam Góor Diagne yore liggéey bi depuis mën nañ ne démb si suba ba léegi ñu ngi fi kon dañuy jox euh, ku mel ne sëriñ Xaadim mu mel ne moom lañ dénk kàddu gi ñu am yenn yu ñu waxtaane ak moom bisimilah sëriñ Xaadim waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah ñi siyaar mbokki jullit mbokki taal di siyaar waa ngeen ñëpp di siyaar ñëpp ñoo xam ne si ñëw nañ ci ndaje bi rek suñ ñu dem ak jàmm ñëw jàmm ci barke Sëriñ Tuubaa waaw kon suñu xaar mu mel ne mën nañu démb ba léegi yéen a ngi si liggéey bi euh, yëf yi wàññi moom nu ngeen ko gisee si buñ mënee xam seen budget baax na bu fekkee que nit mënuñu ko xam it ñu xam ñaata ngeen xayma ci wàllum li ngeen def si wàllum nag yeeg ak yooyu noonu. waaw wax dëgg yàlla biñ biñ xëyee démb biñ ñëwee lañ ñëw commencé ci ci soble bi ñëw ci wàllu oignon beeg yooyu bi biñ xëyee nag wax dëgg yàlla ci ci ngoon gi rey nañ tolloog ñetti nag. mooy kii bi léegi nag ci lañ war a togg fanweer mban lañ war a taal incha allah euh, mbokki taali bi ñëpp nag ñi ci liggéey bi wax dëgg yàlla ñu jàpp ci a baax rek incha allah wax ñi nga xam ne ñoom nga nekkal ci kii bi message bi ngeen di sànni waaw xanaa xanaa li may ñëpp ñu jéem a jàpp ci bi ndax mbooloo mooy doole tey wax dëgg yàlla buñ ci jàppee daal moom suñu borom mën nañ ci def ay tawfeex baax a baax te comme que ñëpp ñoo bëgg maanaam bis bi jag kon dañ cee war a taxaw baax baax su ko defee ñëpp rek ñëw jàpp ci liggéey bi bu ko defee dana dana am tawfeex baax a baax incha mel ne sëñ xaadim mi ngi noonu moom mi nga am na sëñ Massey moom la joxoon kàddu gi yaakaar naa li wax yëpp sëñ xaadim wax na ko ko kon day mel ne dañuy ñëw jàll directement si présidente bi muy soxna Ndeye Ndiaye Seye bu ko defee rek ñu mën a jàll si programme bi. waaw kii ñu taxawal mooy présidente sunu yaay nday Ndiaye Seye di jigéen di jàmbaare euh, yaakaar naa depuis bi mu dugalee loxoom ci waañ yi coppeeku gu baax am na euh, kon sunu yaay Ndeye Ndiaye dañ koy bàyyi mu nuyoo. yéen waa Ngén Seye maa ngi leen nuyu bu baax di leen siyaare di leen ñaanal jàmm ak xéwal di siyaare ñëpp na góor jigéen mag ak ndaw bàyyiwuma kenn képp koo xam ne rek yaa ngi askanoo Ngén Seye ñu sant Seye ñu sant Dia ñu sant ba bawuma kenn pour askanoo rek maa ngi lay sant di la gërëm na am mbooloo moom jiitu ko dafa métti wax dëgg yàlla jigéen ñi jàmbaar lañ lool am nañ fa seef ñoo ngi ànd liggéey bi macha allah dafa suñu ne dara manqué kon nag dama leen di ñaanal fañ bëgg eggal nañ fa eggal suñu dëkk maam bi nag macha allah liñ ci bëgg mu mel ni pale waaw moom lañ ci bëgg ñoo ngi koy ñaanal ñëpp nag képp ku xam ne rek askanu na ngeen sëy mbaa nga sant Diagne mbaa nga sant Seck ñoo la koy ñaanal ñaanal suñu xale yi nag ñu dund a egg yal nañ fa egg ndax xam naa fu ñu egg rek macha allah dëkk bi dana fa egg kon dañ leen di ñaan ci barke borom ñoo ngi la ñaan fu ñu bëgg a egg rek loolu lañ fa egg ci barke Seydina Muhammad waaw moom ñu bëggoon a xam seen waataay wi ndax bu ñu xoolee wàññi ni mu toll nii hmm. yaakaar naa li si bëree bëri moom sori na waaw ah. waataay yi na ngeen naka ngeen programme bi ngeen ñëw waataay bii ñëw masha Allah ñun ñëpp ñu dikk ñeenti ñeen ñeenti oto sarse lañ ko Touba te am na ñeen ñoo xam ne fii ñu ngi ñëw hmm. xaaj baa ngi ñëwaat kon nag mbir moom masha Allah ni ma ko gisee rek taxaw rek liggéey bi rek fas yéene nu mu baaxee rek ñu def ko ñun daal amuñu lu dul yitte ji moo jenn rek suñu dee yitte daal mooy mooy lii mooy ngeen rek macha allah. waaw sëñ di sant rek di gërëm bu baax a baax di sant nag famille doomu ngeen say bépp góor jigéen mag ak di sant bu baax président sëriñ Modou Kéré di sant sëriñ Alsane Sey sëriñ Alsane directeur ak yéen ñi yow sëriñ Jili Sey ak sëriñ Jili Gànnaar mi nuy waxal maam yi di sant doomu ngeen say yëpp nag di leen jaajëfal bu baax di leen wax ne suñu dëkku maam bi moom nu mu rek tey ca kaw ca kanam nag nii nu jàppoo yàlla na ba sunu njaboot gépp lii nu bëgg ci sunu dëkk bi sunu njaboot gépp ànd koog noonu ci kàttanu yàlla buur bu tedd bi loolu rek la ñuy ñaan bu soobee yàlla waaw. محمد عليه الصلاة والسلام واكرمنا بلقائك يا ديان اللهم اجعل القرآن عظيم ربها قلوبنا وجلاء أعزالنا وذهاب هممنا وغائلنا وطائقنا إلى الجنة النعيم اللهم اجعل آنسنا في الوحشة ومصاحبنا في الوعدة بمسبعنا في السلمة وضلنا في الخير ومنقصنا في الفتنة واحسمنا به من الصيخ والأعواه وكيد الأعداء يا رحمن يا رحيم اللهم اختم بالزاد أجرنا وحقق بالزيادة أعمالنا وفرم بالعافية قدوانا وعاثرنا واجعل إلى رحمتك مصيرنا ومعالنا واصل سجال حفظك على ذنوبنا ومن علينا بستر عيوبنا اللهم اجعل تقواك سادنا وسقط بك سخرانا واعتقادنا وعمن من جوع والخبر بلادنا والزائر البلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم بلغ صواب ما خرقناه ونور ما تروناه لروح سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام ولأرواح أبائه وأمعاته وأزواجه وذرياته وأصحاب رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ولأرواح أبائنا وأمعاتنا ومشايخنا ولأرواح جميع المسلمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد قاتم النبيين وإمام المرسلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون wasalaamun ala almursalin walhamdulilahi rabbil alamin waateeg fàll xen naag إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا النور وكن من سلام سر السياسة لنا وسر كامل وسر وسر سلم وسر خاطئ وسر ماجد وسر طيب لنا أمرنا وسر ودمر القرآن دائما اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق